waaw Cheikh Ndiaye la euh, bokk ci euh, convergence des jeunes républicaines euh, du département de Tivaouane nekk également responsable politique à Méouane bon tey dañ fi ñëwoon juste participer ci dans le cadre des vacances citoyennes juste pour apporter notre touche par rapport à ce qui se fait donc loolu dafay baax souvent quand le ministre se déplace ñun en tant que politicien bien vrai que c'est c'est dans le cadre de la République mais également avant qu'il ne soit ministre le ministre de la jeunesse est d'abord un militant de l'Alliance pour la République c'est dans ce dans ce contexte et dans ce sens ci lañ ñëw apporter ko mais forte def une forte mobilisation pour lui dire que dalal ak jàmm et Tivaouane soyez la bienvenue parce que nag euh, Tivaouane tu peux marcher ici les la tête haute d'autant plus que le, le président de la République malgré euh, at yu mu fi bon il a def na benn bilan bu positif surtout au niveau de Tivaouane notamment boo xoolee cette résidence bu nekk ci gannaaw euh, loolu da firnde la ci également accompagner ko ci mission bi nga xamante ni moom la le ministre de la jeunesse di def qui traduit la vision du président de la république euh, dans sa politique de jeunesse c'est-à-dire dem jeunesse bi au fin fond fu ñu mën di toll encadrer leen yóbbu leen ci processus dans la dans les dans le processus de d'élaboration de projet financé leen également loolu dafay permettre ak jeune bu nekk ça va en droite ligne également avec l'acte 3 de la décentralisation muy jeunes yi Euh, fu ñu mën di nekk cest à toog ci dëkk monter fa projet investir fa tekki fa man ma di ko tuddee toog joob coob nga xam ni euh, loolu euh, président de la république moo ko fi indi moo ko fi instauré vraiment loolu moo waral suñu teewaay fii tey. waaw dañ ci gis seen bopp d'autant plus boo xoolee fii Tivaouane dëkku diine la ñun Euh, loolu lañ xam te son président son son excellence le président de la république loolu aussi ay valeur la yoo xamante ni daf ko def ci ñun c'est-à-dire nit ki lu mën di doon ak quelque que loo mën di politique ah sa ay valeur ak côté religion bi automatique su ñun dañ ko privilégié au sein de notre parti euh, ñun yooyu dafa bokk ci suñu ay bokk suñu ay principe de base bokk ci suñu ay conviction bokk ci li nga xamante ni moo ñuy moo ñu moo ñuy motiver parce que la jeunesse d'abord quelque que soit muy euh, ay Boko Haram muy l'état islamique fu muy mën di doon ak fu muy mën a instaurer euh, son dictat souvent ci jeunesse bi lay jaar dafay utiliser fragiliser jeunesse fragilité jeunesse bi pour mën a profiter jaar foofu mais heureusement que le président de la République a compris le ministre de la jeunesse a compris que euh, loolu ay thèmes yu mel nii wala ay visites yu mel nii. dans le cadre des vacances citoyennes dafay baax loo xamante ni dafa nekk loo xamante ni ñun dinañ ko soxla surtout la jeunesse.